ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen ziaraat bu baax a baax di leen wax na nag ñoo ngi fii seen émission bu mag bi mu mag bi ñuy wax jàmmaarloo su ma nee jàmmaarloo nag mën ngeen koo xaafu ne ba tax na tey ñoo ngi fii Pikine seet si ki nga xamante ni mooy coach Lamine Golo su ma nee coach nag coach école de lit wala écurie Balla gay moo fay coach bu mag bi xanaa di ko bàyyi mu nuyoo ñu xuus ci waxtaan wi wéyal ko bu baax a baax coach nuyu naa. waaw maa lay fay di leen nuyu yéen ñi ñëpp di leen bëggee di leen siyaar bu baax a baax di ñaan senegal yàlla na fi jàmm yàgg rawatina géejawaay Pikine parcelle fépp sax soo limee rek da ngay juum waaw. boo limee da ngay juum waaye ñu bëgg waxtaan ak yow tey euh, ci écurie Balla Gaye bëgg waxtaan ak yow ci mbër yi fa nekk bëgg waxtaan ak yow ci làmb euh, d'ailleurs keroog ñoo ngi koy ñoo ngi koy jaale bu baax a baax di ko ñaanoo suuf oyof ci kawam muy Père Balla Gaye bi mu fi jógee gis nañ ni avant loolu sax yaa ngi fa woon waaye fi mu nii xale yi dañoo jël lenge yi teg ko ci sa loxo est-ce que entraîné ay xale ku ci nekk jikkoom yamul ak moom est-ce que yomb na. waaw yomb na yombul parce que man dañ ma daan entraîné sunu kër sa ku si mel ni monsieur Ndour maa ngi koy nuyu au passage ki nga xam ne ni tey jii ñi ma doon tàggat daan nekk doog ci liggéey ba mu xëy tukki ci. da daj ay coono daan def lépp man damaa jàngatee si moom ci lu bari moo tax metti na pour man mettiwul ndax xale ñëpp xam nañ ni entraîné leen yombul ndax léeg-léeg nga teg leen loo xam ne ni seen xool tàng ñu mer après tàngooru yaram léeg-léeg dina leen def loo xam ne waruñu koo def yooyu yëpp dañuy mbir moo loo xam ne ni dama ko teel a canaliser si ñoom ba xam ne daal yomb na yombul daal. fi mu bi ak ak tour bi mu am dayo bi soo ma dee limal mbër yu mag wala champion yu fi nekk ñan ak ñan la Balla Gaye non ñëpp di fi nekkoon ñëpp a ngi fi soo ma juumul kenn rek moo fi jóge ci écurie bi muy Sococim te daa dellu dëkkam Tëngéej te wax dëgg yàlla Sococim moom gàcce ngaalaama moom li mu warloo woon a géej waaye yëpp def na ko mais tamit nag ku sa dëkk soxla da ngay ñibbi rek soo ko sim wax dëgg yàlla ñun dañ koo ñaanal gërëm ko sant ko ba nii may wax ak yow mu ci groupe école de lutte Balla Gaye si biir panel bi si whatsapp bi ñu ko fa beneen ndax moom léppam dafa rafet wax dëgg yàlla ñu koy sant bu baax di ko gërëm te moom xam ne tëngéej googu mu nekk yàlla na ko suñu moroom yeggaleel yéeneem foofu te jàppale ko te xam nag tëngéej yàgg nañ koo soxla muy bañ mais teewul ba lépp jeexee man ñu mu ci njëkk a waxtaan dama ne ko sogo il est jot na nga dem ñun war wàccoo nga ak ñun lépp loo waroon def def nga ko demal nga bégali sa gox. mais moom tamit ñu gis ko mu nekk xale boo xamante ni nii bu taxawee doo laajte ana mbër mi mais des fois chaque jour dañuy gis làmbam dafay xaw a yéex wala des fois mu demee nen nii lan moo nekkoon problème moom. waaw su ko sim c'est du leen nag c'est que mbër yi ñoo doon bàyyi ñoo ko doon daw ndax wax dëgg yàlla su ko sim da njool moo xam ne mat na 2 mètres macha allah toll ni mu war a toll mën a xeex mën a bëre moo tax gars yi nag tamit dañuy taamu nu gën nooy rek. Mhm. mais am na combat mook Serigne Ndiaye bu Faas. naka nga ma digganteem moog Serigne bu Faas ndax Serigne Ndiaye kenn ku ne xam na ni bu dee jàppante macha allah te combat mujj bi defe naa kawoo la jeexee naka nga gisee ñoom ñaar seen combat. non combat bu neex la Serigne Ndiaye dàqul bëre sa ko sim. dàqul bëre man li ma li may wax nii xam naa ko parce que sim géewal nañ ko ngéem na fu nekk ñu yóbbu ko mu bëre ci contact na matin soir contact na sama kanam contact yi kuy contact ak ay Balla ay Elton ay Les de mbëru géejawaay yi fii ñoom ñëpp contact na ak ñoom Soko Sim niilul su bëre Soko Sim tey jii su ko neexee ne kenn du ma daan kenn du ma daan loolu rek da koo mën. mais ci combat lépp xeex ak bëre ñaar yëpp la war a indi ndax am na relance bi am na bëre bi. jàpp nga ne daal bu mu ci def war na cee mën a génn. waaw waaw waaw di maa ngi koy ñaanal ndam bu sedd guy nag. Mhm. Euh, su ma génnee tey la mardi defe naa ni ki démb ngeen ànd ki nga xamante ni ni mooy Fils de Balla diggante mën ak général ndax combat boobu nekkoon na combat boo xamante ni bari woon na coow. ñëpp nee nañu woon euh, de baag boo ci yi ma dégg ñu ci bari nee nañu woon général mooy mooy mooy mooy favori moo ëpp kii parce que bi mu ñëwee ci làmb ji boo xoolee stade bi yëpp général lañu àndaloon. ngeen andi woon Fils de Balla combat ba woon coow naka ngeen ko doon waajalee te boo xoolee jotoon naa yàgg dem nañ ba ci biir général Fils de Balla damm fi général ne dammul day day day day day sóob daa parewul làmb ji bëri woon coow naka ngeen ko waajalee woon. au passage maa ngi féliciter Fils de la di encourager général bu Malika te xam ni moom Fils de Balla daan ko yàqul dara si làmbam ndax mbër la muy xale boo xam ne ku ma jox cër la fu mu ma mënti fekk. su ma taxawee fii ma taxaw dina jóge à 100 mètres su ma dina ñëw ba ci man ne ma Grand Lamine jox ma cër torop maa ngi koy ñaanal défaite bi yàlla na fi yem combat bu mu amaat bu dul mbëru géejawaay yàlla na ko yàlla may ndam ndax ku yaru la te kuy dundal làmb la tamit mais tadi xëy na Zé sama waay la sama raq la comme ni ma ko waxee mais dafa xamul fils de Balla loolu dama bëgg ñëw ci wàccaay la parce que loolu ci combat bi la mais ma bëgg ñëw ci wàccaay la parce que gis nañ euh, bi bi bi bi bi ñu waajee woon am na nu Fils de Balla xawoon mel mais keroog bi ñu ñëwee ci làmb ji dañoo gis poids boo xamante ni ñu bay xawoon na leen a jaaxal ci ci ci ci Fils de Balla. waa mbër da ngay liggéey te Fils de Balla xale la ndax mën nañu combat bi ñaari ñu yàqu benn yoon bi mu yàqu bu njëkk ba Covid moo ko yàq deuxième bi Fils de Balla moo gaañu contact la gaañoo. il fait boobu mu ngi def lan boobu Lamine Lutte TV sax fa la ko fekk entraînement ñëw na Lamine ñëw na ba jël ko def ko lépp ba pare si lay taxaw nag di tàmbalee di contact bi muy contact la gàkko daw di jàpp tànk muy bëre konga contact moo gàkko doo sax si la gaañoo gàkko doo moo daw jàpp tànk bi di ko takk Fils de Balla la téye ko pour jéem koo pàdd quoi tël ko bi mu ko tëlee nag di mu def déplacement bi baaxul sama kanam la dammee loolu moom. du loo xam. ñu doon wax naan Fils de Balla dafay dafay dafay andi ay benke ñenke boobu loolu amul. Fils de Balla dafa dam jour boobu bi mu taxee tànk bi tàmbalee nii li gën a dee à 9h jooy na ba sonn école ba 9h man maa ne ko demal waa bëre ñu xool sa tànk bi. bi mu demee si la dem woo ma téléphone ne ma kër si mu ne ma mu ne ma docteur bi ne ma tànk bi daa am félir ma ne ko ah mu ne ma waaw mu toog jooy ko ne ma léegi nu may def nag ma ne ko nooy def mooy lan fajal sa tànk wér moo ëpp lépp. lii combat la rek dañ koy jàppaat beneen si la taxaw jour boobu ñu woo ko def ko yëpp faj ko tabax ko yooyu yëpp si la ma woowee appel photo lépp ma man la njëkk yónnee dam dam photo beeg kayit yeeg yëpp maa ko yónnee ménagère bi maa ko yónnee Assane Ndiaye. man mii sax envoyé na voilà man maa leen ko déclaré mais parfaitement dafa gaañu woon moom boobu. léegi ñu jàppaat ko ñu gis benn poids boo xamante ni nii ñëpp xaayu nga ci woon ci moom bi mu yokkee poids ñu gis général Malika wàññi pois bu bari. non Fils de Balla yokkul sax poids hivernal bu baax la def rek dafa hivernalu ndax ñun ñëpp ñoo doon àndandoo di entraîner man li ma leen di wax rek man ku xam gis nga obali mii obali laaj ko pré Ibou Ndiaye préparation combat bi chaque jour ñun ñooy nekkandoog din ya man moom ñun ñëpp ak samay booy man damay taal ñun ñëpp dañuy taal ku ne taal moto ñu taal moto ñu dem din ya dañuy entraîner ñun ñëpp booy bi hivernal moo baax soo xoolee sax combat bi da ko bett ndax toog na ba combat bi des un Assane Ndiaye mu ne ko mois cinq jours moo des Fils de ko non loolu du ma ko bëre combat bi combat capital la Assane combat su doon deux mois sama nag du ma bëre Assane ne ko non ñu tàmbalee jaw mu woo ma téléphone moom Fils de Balla kër sa mu naa mu ne ma Assane daf maa woo léegi ma ne ko lu ma mu ne ma non combat bi nangam ak nangam la ko bëgg te dafa jege kii ma ne ko Aziz mu ne ma naa ma woo ko ñett yoon ma ne ko bëreel wallahi wa taala ak lu mënti xew di nga daan général fii laa toogee di koox. fan nga tegoon loolu. non dama xam ay capacité am te boobu liggéey na loo xam ne nii su combat ba doon suba suba mën na ko daan fii de Balla bii mu yokk du doom du dara xale la te soo demoon seen kër ba gis ay raxam ak ay magam da xam li mu yor moo ko moom. te su ma la affaire wàññeeku na parce que teg nañ ko ay entraînement yoo xam ne bi métti sax. kon na fi nii. non déggoo ma la Fils de nitu yaram la nitu yax la. su toogee une semaine entraîné wul sax day jël poids. tollul loon ni gis nga combat bi soo xoolee jeudi sax nii mel combat bi ñaar samedi ak dimanche bi mu noppalu moo tax moo indiwaat pois bi noonu. mais ñu gis ci biir bërëb bi ñoom ñaar bi ñu dugg see ci biir géew bi mystique bi bari na trop ba ñu ci bari ñoo ngi naan ñi xam naa bu mardee bu ñu demee CNG bu ñu leen daggee ku ci nekk dina génn jooy mystique bi bari ñu ñëwal ci ci biir géew bi mais favori bi ñu jëloon jox ko général ne mooy bëre. Euh, Fils de Balla xeex bi moo ko arrangé dafa mel ni sens contraire la ndax dañoo ñëw kii di Général Malika attaqué xeex bi Fils de Balla ñëw ñëw yootu bëre bi wàccaay li lan la. waaw si biir géew bi gàllaaj yu bari yeeg yooyu yëpp yooyu baax na tamit ndax man benn instant wax naa wax ba soodu be dafa neexal xam nga kañ la doon bon mu àndoon ak ay xeex wala rayante mais ñoom rayantewuñu li muy bari bari bari yëpp ku nekk si li nga war a nekk ngay nekk ñu ngi tooñante nag di mbalagante te loolu defe naa ci làmb la bokk te da doon dundal làmb te da doon neexal. wàccaay bi nag beneen bi général Malika ak Fils de Balla man Fils de Balla dama ko jëloon déso dama ko xeexloo woon si combat bi. waaw dama ko xeexloo woon ndax moom combat bu baradul dara chaque instant heure bu ne la ñuy waxtaan ak moom ndax man dañuy entraîné pare teew dañuy nekk si téléphone bi di waxtaan si whatsapp bi. ma naan ko nii nga war a defee suba soo xëyee defal nii ginnaaw suba nii wag di di jox programme mu ne ma fi kër su mu ne ma mu ne ma bi su laajee dee sax ma dee ndax waa ji daf maa xas nawloowu ma. da di boo xam ne nii man bëggoon naa ko torop de mais moom moo ma ko gënoon a bëgg. ñoom ñaar a bëggoon mu ngi doon wax nii nii nii rek mais xamul fi Fils de Balla tegoon combat bi. parce que da koo xas ma ni ko nag ñaari jàmbaar suñu xas-xasandoo ba pare bëgg nag da lay jaral Fils de Balla xam nga combat bi ma général xas na la xas nga ko wax na la yow gis nga sa bopp li la war mooy liggéey su arbitre sifflé nga ñëw def li war def fulla ak fayda. naka nga gisee ñoom ñaar seen bëre parce que arbitre daa sifflé rek ñu lewaatoo dem góos xeex daw jàppante. waaw parce que si soo xoolee Fils de Balla si biir géew bi laa changé stratégie bi li ma li ma ko liggéey loo li ma ko def loo woon. biñ ñëwee ba taxaw. biñ ñëwee si digg géew bi ba G simmee ko ba daw ba xool laa liir général ndax am na benn instant dama toog si siège bi boobu maa ngi jàng adversaire bi ndax la ma yaakaaroon ni loolu lay indi indiw ko. loo yaakaaroon moom lay indi. non boobu dama yaakaaroon G day indi volume bu rëy tànk yi comme la mu daan indi. ma woo ko ba mu ñëw instant bi arbitre yi taxaw njëkk naa wax ak ma instant bi arbitre bi ñëw ne ma dafa niin ñëwal fomp kook yooyu bi ma koy fomp soo la xëy nga maa ngi koy gis bu baax. boobu soo nga tourné wax wan arbitre bi ginnaaw jàkkaarloog moom. di def di fomp di wax moom si laa ne ko as ma ma ne ko kii gis naa ko dafa góosewee général ndax dama ko seetlu léppam góose la daa góose loxo góos bi moom lay bëgg di jàppe moom lay bëgg di bëree moom lay bëgg di xeexee te loolu handicap la ci mbër. ndax mbër su fekkoon day jàpp loxo góos day bëree nga xam ne heure bu jàppee loxo góos rocc duraat boobaa doo ko mën a yegg fenn fi mais man damay liir mbër ndax dama jàng bëre. loolu est-ce que wóor na nga ñëw ba ci digg géew bi mu waaj ba noppi nga ñëw dindiloo ko lool. xam nga lu dindiloo ko xam naa ki ma dama ko xeexloo woon maa ñëw ba ci biir làmb jeeg yooyu yëpp na ko as mu ne man kii bu fi nekk di xeex moom kii heure boo ko appelé góos su fayoo dóoraatal su fayoo nga daw yooru jàpp ko soo ko jàppee. daa diisee kaw soo ko fàqee day ñëw fils de Balla ak may dégg maa ne ko heure boo jàppee devant lu mënti xew heure boo ne leen kirtim solante fexeel ba jàpp devantir bi soo buusee fàq rek day ñëw far yàlla gën koo yombal bi mu dawee jàpp nuuru di gën a defaru g konne di dóor di dóor moo tax bi mu ko fàqee g amul équilibre day wàcc si la wàccee ñëw mu wër ko ma nag mais wër ndomb bi ñu bari ne ñu bari ne nañ euh, Fils de Balla foofu peut-être général Malick moo tax sëgg bi xaw a yàgg foofu ñu ba sax nee noonu général dafa doon rëcc mais dafa xawoon a yàqamti parce que bi muy bi muy bi muy tourné loxo ba jotul a génn. waaw c'est que Fils de di mu bëree noonu la wër ndomba soo ko defee mbër yow mi ko wër ndomba da nga koy déglu ndax am na nooy koy ma profité rek mën na rëcc moo tax Fils de ne tekki déglu ko pompé ko ay hypercule dóor dóor am na benn instant sax si siège bi ngi naan ko suivre bëre bi. waaw parce que ñoo gis bi mu jàppee dem na yi di xool public bi di fecc. waa ba boobu yuuxu naa ko sax. ba sànni ko saaga ne ko suivre bëre bi mais làmb ji noonu rek la mënoon demee nag ñoom ñaar nii rek la mënoon demee mais man xam naa suñ doon bëre quatre-vingt-dix minutes général su jàppee fils de Balla jàpp. mais mais damaa dégg ci waa général yi nee nañ jël amul. a ah, jël su amul lan moo am. dañuy bind recours est-ce que dugaluñ ko sax. a ah, waaw mën nañ dugal seen recours mais man gisuma lu fa jël ndax général moom ni mu yàggee suuf rek soo xoolee def na fukki yoon juróom tey ji arbitre bi déjà rek. dañ ne nit su la waree ndomba dóor la cinq coups dañoo war a àtte combat bi te dèjà rek am na foo xam ne Fils de Balla dóor na ko six coups bi mu koy doog di wër ndomba man boobu jàpp général am na benn instant bu mu kuccalee Fils de Balla mais boobu yëpp maa ngi ragal arbitre bi sifflé di leen woowaat di leen avertir di leen woowaat si bëre mais Fils de Balla da ko daan ndax général ñu bëri ñu ngi naan quatre appuis mais teg na fes bi. loolu nag la ñuy contesté na fes bi moo la am. teg na bi quatre appuis bi sax. wóoruma mais fes bi moom teg na ko moom ndax foofu nit mënu faa jubbantiku ak Fils de Balla poids bi mu am général mënu faa jubbantiku te fes bi du teg mënul ne. mais mu jógee ci victoire te ñu bay doon nañ ko séntu fu raw foofu mais ñu ci bari dañ ne woon respecté wu làmb wala bokk entraînement yi teg koo ci yoon mais Fils de la waroon na dépasse fii gannaaw jógee na ci ndam fi mu toll nii fan la war a teg bëtam. man moom li ma koy digal mooy na dem liggéey ndax man du ma nëbb dëgg li ñëpp mooy dëgg ndax day bëgg a bàyyi ba combat de suro amoo rek. quatre mois wala ba jël avance doo ko rey boppam làmb soo bëggee fe yegg fenn fii da ngay teel a pare na dem liggéey laa koy wax ndax yegg na foo xam ne nii xale la ndax Fils sa Balla su liggéeyee trois mois rek téye ko boppam def li mu war a def day am doole. parce que xale moom dafa neex liggéeyal mais li ma koy digal fi mu jëm day gën a mettiwaat na teel a pare gën a liggéeyaat ndax su ma la xebeer affaire kenn mënatu ko see bañ a ponkalik fii gis yëpp. loolu de am na moom yëpp ngay dégg ñoom ñii ñëpp kenn mënu ko suivre. seen bërëng ci franc. billaay wallaay wa taalaahi balaa ngeen doon xam Fils de Balla mooy kan sax man franc laa gënoon bëgg ñu boolewaat kook moom ñu xool. Ah, franc franc franc xam naa dina la seetaan te Fils de Balla tamit xam naa ne loo ko digal loolu lay def. waaw man si boppam wax naa ko nee naa ko franc foo taxawte bu mu am jàmm fu mu nekkati nga gis ko bu mu am jàmm. ndax man xam naa ne ñoom ñëpp épreuve de force la ñuy bëre seen soo ne leen ba soo toogee def seen bëre bariwul nag internet bi dafa doy waar di nga gis ñii taxaw naan da nga saagaak ñii naan da nga siisoog ñii di la dépassé di la wax wax yoo xam waruñu la ko wax mais man sama poulain moo ma ñor su ma déggee wax ji daal da bëgg sa Fils de Balla dugg ci lutte simple bi ñu fay toj mu jël leen rajaxe leen mm-hmm. mais maa bëgg mu jël franc ah a ngi fi promoteur yaa ngi fi mbër yaa ngi fi tamit mais su ma jógee ci loolu euh, ba démb kii di Bombardier dañ koo gis mu demoon doon defi MMA combat bi ñëpp seetaan nañ ko combat bi yàgg na waa jàppoon nañ ko fi mu blessé fi feebaroon fi boog du moins ñu jàppaat ko mu nekk événement boo xamante ni Sénégal gépp nga ko doon ñaanal te ñëpp yéene woon nañ ko ndam mais ñu dem gis combat bi bi nga seetaanee combat bi nit ñi neen dafa gaaw ñi dafa yomb ñi ne nañu détails yu bëri daal maa ngi koy dégg bi nga ko seetaanee naka nga jàngatee komba bi. non bi ma ko seetaanee man wax dëgg yàlla dama part personnel mën nga laaj sama ñaari soxna yi nekk si kër gi wala nga sunu waa kër. Bombardier bi ko waa dóoree mu daanu man dama mel ni man lañ dóor ma daanu ndax lu mu bon bon man sénégalais laa quoi te sunu drapeau réew la demoon pour xeexi ji dama am lu ma mett torop mais Bombardier MMA arrangé wu ko parce que màmm bi muy màmm heure bu ko defee tubaab da lay jàng tubaab du tëb tëb rek jël la dañ koy jàng jàng ndax Bombardier mënu dèjà rek dèjà biñ ko fësatee bi ko waaju ji pàddee la perdre contrôle boobu xam nga loolu la war a def reculer ñëwaat. dellu ginnaaw dellu ginnaaw ñëwaat su dee benn pas trois pas tegaat ñëwaat pour côté bi mën a dellu si waat mu baax mais dafa forcer dem waaju waa ji dolliwaat pàdd bi. Bombardier mën naa ne bi ñu koy dóor crossé sax mën naa ne dara nekkoon ndax tànk yi taxawatul ndax pàdd bi moo metti ñooñu soo xoolee li ñuy entraîné suñ la pàddee da nga koy yëg te tànk mooy nit si sidit bi day yéeg ba ci bopp. ma am lu ma métti torop torop torop torop nag wax dëgg yàlla. Euh, ay mbër daan nañu dem bëre ji MMA ndax gis nañ ci Reug gis nañ ci Bombardier gis nañ ci keneen ak keneen mais bi bi bi bi chute bi amee ñu ci bari commencé nañu génn di ŋàññi nee nañ mbër mënul def MMA ñi naan di fi gis mbër ñu dóor ko mu dee ñu ci bari di génn di waxee benn façon bi est-ce que daa jàpp nga ni mbër yi fi nekk wala boog ñi ngay gis. mën nañoo dem def ji MMA parce que MMA ñun suñu làmb ji da gis dañuy dóor daw jàpp dóor daw jàpp te ñee dañuy dóor tànk dañuy wéq dañuy conc lu ci nekk lañuy def est-ce que gis nga ne mbër yi mën nañoo avancer ci MMA bi. c'est que MMA ak làmb tey jii mën naa ni làmb 2 pour cent la ci MMA. 2 pour pour cent la. loolu parce que bariwul. ñee dañoo complet sport bi yëpp la ñu xool ki daan bombardier bi mu paree nga xool sport yi mu jaar yëpp yi ñu lay wan yëpp MMA dafa complet gars yi su fekkee dañoo bëgg a def MMA dañ koy teela a préparé teel koo liggéey teel cee nekk mais bu xaalis bi bari rek ba ngay dem di toroxal sa bopp gis nga li daloon rek rek waa ji laalu ko sax romb la def parce que jël na fa ay coup de jël fa ay bit ay bras de volet yoo xam ne yu doy waar waa laalu ko sax foo xam ne dafa mujjee sonn dafa épuisé sonn tëdd ne dañ ko dóor te dóoruñu ko ñun ñëpp xam ne ñun ay sénégalais lañ coup bi dalul mais rek boobu bàyyi na parce que li mbën yëpp def na ko song na jéem a dóor naax pour bëre yëpp waaj di ko dóor ay coups de fii dafa metti mais li ma leen mën a xamal mooy leen MMA du ay caaxaan te mbër mu ko ci jàngiwul wala ku ci yaakaar ni bëre bi rek moo la ciy génne dama ragal ñu rey ci mbër te tànk rey ñu si mbër nag duñ ko bàyyi. ay mel mi. billaay wala non non ñii baaxuñu yow xoolal waa yow rek koo xam ne ay terrain la doon xëcc. ñun ay avion ñun sénégalais dañuy téye nekk si saal bi di laal ay biceps ay poli xoolal bombardier di wane wu mu naka de mu ngi def lu gën a yéeme si àdduna nëbb ko boppam. bàyyi ba rey naroon ko rey ba pare doog ko génne xam nga ne kuy xëcc ay avion di téye ay pois cent pois quatre cent kilos di daw ak moom di téye ñaari oto di yëkkati di ko liggéey ay lombeer. boo fi yónnee sa mbër yóbbu ko noonu kañ dem xëcc avion bi danaa la ki def ma. maa seetaan benn vidéo boo xam ne bopp terrain la waa ji jël téye di ko xëcc si kaw raay bi mu ngi nii pare ak oto douze roues yi te conteneur bi ak conteneur bu ñu sàdd ba pare mu téye ko di daw ak oto bi. kooku tamit dafa doy waar kooku nañ ko bàyyi rek kooku du nit déggoo li Père Gasson kooku du nit jarul ba gaañ na Bombardier dóor na ko mu daanu ba léegi reewul manifesté wul. manifesté wul parce que. amul lu ko neex. non xam nga lu tax manifesté wul defu da xam naa la mu foogoon ak la mu bëggoon amul ndax ñooñu su ma la waxee benn affaire ñun on est ay africain lañ ay sénégalais lañ xëy na sunu entraînement ak sunu kattan la ñuy yóbbu mais ñooñu dañuy doon ay drogué. ñooñu dañuy doon ay doroge yoo xam ne seen biir dëkk nga leen fekk mën nañ leen leen defal loo xam ne ni mën nañoo mën nga leen dóor cent coups duñ koy suñ la dóoree nga mel ne àdduna lañ la dóor ñooñu duñ ay nitu kese soo xoolee sport yi ñuy def loolu entraînement rek mën la ko def loolu ay doroge lañ. loolu ñu bëreel quoi ñun duñ ay ngaaka quoi mais bombardier na. kon nan ngay wax mbër yi nga xamante ni seen xele ngi ci dem ci MMA. ñi si nekk daal comme xale nga xam ne ñu ngi ciy doog ay rëg-rëg ay Ama Baldé yi may dégg ay Siteu ay Boy ñaa ñoom ñooñu nañ si gën a entraîné waat bu baax rek balaa ñu si gën a dem ba sori ndax Bombardier kii ñu ko booleel nii du question de palmarès moo ko fa boo yóbbu de gabari moo ko fa yóbbu. gabari Bombardier dañuy waxante dëgg rek gabari bi lañ xool dem boole ko koog mais su fekkoon palmarès Bombardier li mu waroon xeex sa MMA xeexagu ko bay yegg foofu dem bër dem ñu përët ñu boole laak trois combats la def ko xaw ma quatre ñu boole kaak l'homme le plus fort du monde xam nga biñ la waxee loolu war nga mën a xoolaat sa bopp quoi l'homme le plus fort pour biceps bi mu yor rek toll na ni bombardier cent quarante kilo la nga koy biceps benn loxo dafa quoi. mais mais su ma jógee ci loolu ndax euh, su ma juumul euh, Balla Gaye moo wër ba ki nga xamante ni mooy bombardier kañ la janvier. waaw ah, le premier janvier ngeen wër ba ak moom mu dem defi esport yàlla def ne mu ñàkk mais ngeen wër ba ak moom du wàññi seen diggante combat Balla Gaye ak bombardier du ci wàññi daal. wàññi comme nan. mu jóge ci defet te moo leen daanoon ngeen ñëwaat jëlaat ko mu bëriwaat ak yéen. non loolu MMA la demoon boo waxut làmb Sénégal. làmb eh, dafa am dafa am benn affaire bu kii bu ma ci bu ma ci bu ma déggoon ci sport làmb dama déggoon ñu ne ku kaawoo di nga toog ñaata mois balaa ngaa balaa ngaa bëriwaat. mais loolu est que làmb fii si exi moom fële la kaawoo Europe te dégg nga Bombardier nee na lañ ko téye xool nañ ko dara xewul boobu yëpp normal na mais man li ma met mais damay ñëwaat fii bañ Balla dóor ko mu daanu ñu naan kaawoo bee ko bàyyiwu te xam naa looloo nar amaat. Balla est-ce que mën naa doo Bombardier mu daan. non Bombardier yow fi mu ne ñun gis nañ faayam pàdd lay bañ ku ko pàdd lay bañ ji. est-ce que Balla dina mën a pàdd Bombardier. Balla mën lu raw pàdd nga naan nangam ak saaga Bombardier kay fi mu ne nii yàlla na ko yàlla defal jàmm rek waa seet suñ ko xoolee nangu koo bàyyi bu bëre. ndax ñun dañ koo bëgg a daan doo waa xool leneen ndax fi ne làmb ji mu ngi sooxe te xam nga ni yéen Balla moo koy neexal nag. mais koy neexal mais dañoo gisoon premier combat bi euh, ki nga xamante ni mooy Bombardier daanoon na ko mu nekk revanche nag bu ngeen soxla te yittewoo ko ndax yeneen combat ngi seen kanam di leen xaar naka ngeen ko noo waajalee. non wax dëgg yàlla ñu ngi ci nag ndax moom nii may waxee ak yow mu nga dëkk ba di liggéey. mu nga si entraînement yi méttee métti. gars yi ñu ngi fi nekk nag ñi nga xam ne ñoo war a gérer aspect mystique beeg yooyu ñu ngi nekk ci li ñu war a nekk moom liggéey ba rek lañ ko sant ndax Balla dafa am ku mel ni Aziz Ndiaye Aziz sant ko leen lu loolu demal liggéey rek la ko sant demal wuti doole nga ñëw xam nga loolu ku la ko sas rek dafa neex. lépp lu war sa yaram xam nañ ko dañ koy def as foofu la bàll atu boobu la am te dëgg yàlla mu ci li mu war a nekk su ñëwee ñun li nga xam ne mooy dernier réglage yi la nga xam ne liggéeyoon nañ ko ndax xoolal nañ ni bombardier faay boobu la am xoolaat nañ faay bi mu gën koo wanewaat si loolu la ñuy gën a liggéey waat rek. kon daal di ngeen wokk naa ko neex na bàyyi naa ko. non faay bañ gisoon ba di ci liggéey si bombardier ndax waxoon naa ko faay boobu dama ñëw gën koo gisaat si bombardier si faay boobu rek la ñuy nekkaat liggéey ci rek. sunu borom suturaal ñu si may ñu si ndam. yàlla baax na mais dañoo gis fan yi géejewaay neex na te yëngu na mbër yaa ngi dem di génn di bëri di andi ndam naka nga gisee lool. nañ juboo rek dañ ne li tubaab naan li ñoo fee la force nañ gën a juboo rek gën a àndaat rek gën a yéenante ñoom ñëpp jàmm jàmm jéeg lépp am na yéenante bi ba nañ ko gën a yokku rek ku fi am combat rek biir géejawaay bi yàlla na sunu borom suturaal may la ndam loolu laa leen di wax ak ni ñuy jàppalantee si contact gi. ak di ji xoolal Fils de Balla combat bi ay écurie moor Fadam ak fu ne jàpp na contact na ak ñoom loolu lan moo ko boole jàmm daf may woo kër si tey fii fekk jamono jooju école bi nii ñu ngi ci gàmm ma ne ko demal écurie Mor Fadam écurie yi Eumeu Sène Junior mu ngi préparé combat ak gars yi nga dem ñu jàppale la. am na si yoo xam ne yii day ñëw école ba contacté na écurie bi jàppante léeg-léeg tey mu ma ne ko nañ dem géej yóbbu booy ne nañ leen dem géej lépp te teewul écurie Mor Fadam géej ay mbër yëpp doon ñëw di si jàpp di contact ak moom. wax dëgg yàlla loolu la rek ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nañ gën a jàpp rek ñoom daal waaw géejaay ñëm sa kanam. Euh, sama question bi mujj mooy euh, dama ñëw ci ñaari xale yoo xamante ne nii ya bi ñu duggsee ci làmb yàggul mais ñu nekk xale yoo xamante ne làmb da leen a bàyyi xel te ñu nekk ay jàmbaar nekk combat boo xamante ne nii képp ku ci jóge mën na ubbiwaat sa yoonu làmb te mën na laa yóbbu sooy muy diggante Ada Fass ak Tapha Mbeur naka nga gisee ñaari xale yi seen préparation. seen seen seen seen xas-xas loo ñoom ñaan ndax ngay gisee boobu combat. waaw combat bu neex la nag. combat bu neex a neex a neex a neex ndax ñoom ñaar ñëpp tey ji mën naa ni xawma leen nag mais ki ci xaw a am as tuut Ada Fass ma mosuma daje moom mosuma koo gis mais ki ci xaw a am as tuut ma fekkee ay entraînement mag yooyu muy Tapha Mbeur ndax fekk naa ko ci koo xam ne ki koy entraîné xaw ma kan de mais du entraîné mbër pare ñu naan parewul comme mos a ba pare doole di nga ko am te di nga am fraîcheur physique bu baax. muy gii olympique club am na kër su bu baax musculation boo xam ne dafa complet ci lépp lu mu la liggéey si endurance beeg si doole jeeg ci vivagité beeg lépp da koy liggéey ak yow mais fekk naa ko fa muy entraîner te mën naa ni 4 mois avant combat bi taxaw laa ko fa fekk dafa yàgg nag. Mm-hmm. yàgg na préparé wu mais ñu ngi dinañ bëri combat bi ndax Ada Fass bërekat la. Mm-hmm. bërekat la dafa Tapha Mbeur bërekat la mais soo xoolee Ada Fass moo xaw ëpp bëre. Ada moo xaw a ëpp bëre ndax Tapha Mbeur daa bëgg bëre wet li ma koy digal mooy na sàmm wetam gi rek te xam ne am na xale boo xam ne daa nekk ci yoon te bërekat la te gëm na boppam jàpp na lu taxaw si kanamam moo la man muy Ada kon kooku Tapha Mbeur moo ko jiitu ci làmb ne ñëw bëreek moom bëre mag rek. bëre mooy lan. bëre mag mooy rek jéem a xool rek lu mu def mu dindi ba jéem a xool nu mu ko naxee daan rek. gis ngeen nañoo andi feemu ndax daan tey Lamine lañ fi lañ fi dalaloon waxtaan ak moom ci émission bi nga xamante ni mooy Jamarloo soo amoon kàddu yu mujj lan lay doon. waaw xanaa di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di waxaat la ma doon wax rek di ñaanal per Balla Gaye Ndour fa mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jóge di ñaanal sama papa. fi mu tëdd tamit moom it yàlla na ko gënal fii mu jóge di ñaanal duubalees di ñaanal ancien gloire yi fi bàyyikoo yëpp maa ngi leen di ñaanal ndax manqué nañ làmb torop di santaat ñëpp di gërëm ñëpp te naan rendez-vous rek nañ ci nekkaat ci liggéey bi ñun école de lutte Balla maa ngi gërëm ñëpp di gërëm sama waa gox yëpp Alioune Sall ay dara Lat Diop ñoom ñëpp maa ngi leen di woo bëgg naa ñu ñëw jàppale école de lutte Balla Gaye muy Lat Diop sut si Lat Diop def si war a ñëw jàpp ndax ñun soxla nañ soutien am ndax gis nañ ni mu yoree GFC équipe bi kon war na mën a ñëw jàppale écurie Guédiawaye rawatina suñu école bi alin Sall mooy maire de Guédiawaye woo naa ko fukki yoon ak juróom pour suñu école bi dañoo am problème yoo xam ne si miir bi nañu ñëw jàppale dimbali ñu defar suñu miir bi lu ñun soxloo ñu xaalis soxloo ñu dara suñu wutalee ku ñu ko defaral sax ñun sant nañ ko gërëm nañ ko di sant Kéba Kanté tamit sama xarit sama doomu nday di ko ñaanal muy social bi muy def si biir làmb yàlla na ko sunu borom gën a lépp ndax mën naa ni démb rek la ma am lu ma joxaat ne ma yóbbulaatal père Mohamed Ali ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne mu ngi leen di jàpp maa ngi ñaanal Kéba li mu mën ren yàlla na koy gën di mën di gërëm waa groupe bi tamit ndax daa créé benn groupe boo xam ne ni ñu ngi liggéey liggéey bu doy waar muy groupe Bësal Bënd groupe bu doy waar la moo ñu ngi ceeg ay kàngaam yoo xam ne ñu ngi ci biir groupe bi yoo xam ne nii ñu ngi waajal loo xam ne population Sénégal ak jeunes yi nañ ñaan rek yàlla baax na maa ngi groupe ñëpp di nuyu président bi mami mooy président ñun présidente lañ am foofu si groupe bi ndax Kéba dafa jël lépp jox ko di gërëm ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax. gis ngeen ni lañ koy defee ci jàmmaarloo di leen jox dig daje ak beneen émission jàmmaarloo ci wasaare làmb jërë ngeen jëf.